jërëjëf euh, Maria jërëjëf Birama xam nga lislaam lépp ci tàmbali ba ci njeextal ay sabab la mm-hmm. ay sabab la Arafat nag dafa doon ci bis bi nga xamante ni bis bu am solo ci lislaam mm-hmm. te nit ki bu ajee te Arafatam baaxul ajam baaxul mm-hmm. alxaju Arafa yonent bi sallallahu alayhi wa ci Arafa la taxawoon jullit yëpp taxaw mu fàttali leen mission bi nga xam ni moom la ko yàlla subhaanahu wa taala santoon wooloo ko ay mbokkam mu woo leen ñoom ñépp ne leen law kadabtumu naata jamian maa kadabtukum walaw garartumu naata jamian maa garartukum inni la rasulullahi ilaykum xaasa wa ila nnaasi kaafa su ma doon wax lu dul dégg danaa ko wax jëme ko si ñëpp ba mu des yéen samay mbokk su ma doon wor danaa wor ñëpp ba mu des yéen samay mbokk yàlla moom ma yónni man nekk yonent jëm ci yéen exceptionnellement samay mbokk ak ci nit ñëpp ñu koy wax rasulu rahma muy ndaw ko yërmande bi ko yàlla di yónni xam nga yonent yi bu njëkk leen daan yónni ci waa ndóoyeen mhm. yónni leen ci waa mbengeen ñu ci waa saween ñi ci waa siween ñi ci waa faaleen mais yonent bi yàlla def ko yónni ci ñëpp xam nga jàng alxuraan ba tax dégg yaa banu yaa banu yaa banu israil hmm. am na yonent yoo xam ne leen yónni ci israël waaw yaa ngi dégg ñoom ils ont tué cent vingt trois mille deux cent quatre-vingts prophètes hmm. la rey yonent bi nag yàlla yónni ko ci àdduna hmm. jox ko mission bi mission bi jeexee nag moo waral taxawaayu arafa mu dajale jullit ñépp ne leen yàlla ma santoon lii ne naa leen digal ngeen woor naa leen digal ngeen joxe azaka naa leen digal ngeen dox seen diggante ba ñaawoo du ci am naa leen digal ngeen fonk sëy fonk ñaari waajur naa leen digal ngeen fonk dëkkandoo naa leen digal ngeen defar ay diggante naa leen difal digal ngeen diggala ngeen dimbalante naa leen difal ba digal ba ñi am jàppale ñi amul mag ñi yërëm xale yi xale yi jox cër mag ñi maa leen diggal maa leen digal maa leen digal mhm. yooyu nag ma yàlla santoon ma diggaloon leen ko yàlla wax ko ci alquran min baqara ila naas ma taxaw tey di leen laaj ndax loolu ma yàlla santoon ci mission matal naa ko am déet ñu nekk hankay yonent bi saa salaam matal nga mhm. biraama keroog abakar dafa jooy jooy yu mitti ñu ne ko looy jooy ma ne yonent bi waxam ji waxu koy tàggoo la ndax ku sa mission jeex nga dem Abubakar Siddiq loolu la jooy mu ne ay ay alxuraan ne al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islaama dinan mooy li ma wax sànq ah seen dina dina ji mat na de alxuraan ji mat na man maa ne dernier des prophètes la nabiya baadi wala dina baadi yonentu ñëwul sama gannaaw dina ñëwul sama gannaaw alxuraan a ngi nii mat na yàlla kenn la kenn du ko bokkaarle kenn du ko dendaatle yéen nit ñi dimbalante leen ci seen biir yërëmante leen ci seen biir ñi am nañu defal ñi ñàkk ñi ñàkk bu ñu ñàkkee nañu muñ te xam ne nit mënul xañ nit mais yàlla may xañe bés bii nag woor ko sunna la sunna la du wooru bokkul ak wooru koor weeru koor gi xam ne bu ko biraama woorul yàlla sanctionné ko déet na moom mën def la ñàkk mën def bàyyi mais boo defee am yiwu waaye rek boo deful doo am bàkkaar que muy leer nit ñi xamee ko loolu bu ko defee itam bés la goo xamante ni jàng ci alxuraan lu bëree bëri recommandé nañ ko ci def ay salawaatu ala nabi recommandé nañ ko ci saraxe recommandé nañ ci maanaam bis bii bis la boo xamante ni Maria li ci ne ci ay ngëneel ne ci ay leer ak ay teranga kenn xamul nu mu toll Maria julli Arafa benn rakk dafay repré représenter julli deux mille julli dix mille prières la julli Arafa ko fa julli tey loolu yoolu ko julli dix mille julli ngay am mm-hmm. bu dee ci Makka la boo fa jullee benn rakka dafay weccoo junni rakka moo tax ren nee naa nit ñu bëri amuñu possibilité sax concentré wu ci seen i aj ndax TikTok ak Snap ñu bëree bëri ren ji seen aj jar na xoolaat ba ci yax-yax yenn oustaz yi ba ci yenn religieux yi parce que au ma où fi nga war a concentré wu def say farata mais yaa ngi yaa ngi armal amoo bàyyi woo xel yàlla mais yaa ngi bàyyi xel yokk sa compte TikTok wala yokk say vues au moment où yaa ngi waroon concentré wu jaamu yàlla ci sa jaamu yàlla. Mariam doon tàngaay boo xam ne kenn du xam ne Birama kii député kii mooy ministre kii mooy roi Mariam lan cay jàngee mooy daf lay wan taxawaayu saa yowmal qiyaam yowmal qiyaam